day am première section deuxième section troisième section quatrième section. Naby Vision. boo lépp mu nekk deux cent cinquante vingt et un cent cinquante vingt deux deux cent cinquante vingt trois deux cent cinquante vingt quatre ñu defee ko noonu mu nekk mille personnes ñu former leen nag centre d' instruction mooy CI defal leen formation bu ñuy woowee FIT. formation initiale di combattant ngay dem école di jàngi xëy suba teel dem sport dawi ñëw nga dem nga dem nga dem bivac ñu jàngal la arme jàngal la s'équiper jàngal la ay leçons yu ba nga maîtriser ko pour nga mën a nekk l'homme de terrain police am ay auxiliaire de police bu njëkk da leen daan former bango comme ay AP1 e, après njëlee foofu yóbbu leen Kaolack nangam nangam ñu dem bam yag police tabax ay école am police nak ñun ñep xam nañ ne du corps militaire typique corps paramilitaire la ñu gis ne yow bi ngay nek fofu yow Jean Baptiste bi ngay nek gendarmerie bi recrutement yi feulé yow da nga bañon moy recrutement PA GAV gendarme adjoint volontaire yow Jean Baptiste da nga bañon loolu bokk na ci tax Macky Sall radié la. Nabi Vision parce que da nga ni ñi du ñuy ay militaire jaaruñu bàngoo defuñu fig te gendarmerie corps militaire la Macky Sall rajo la andi Moussa Fall mu accepté ko bi ko Moussa Fall accepté dugaloon nañ leen defal leen formation ba pare gendarmerie bañ ne ñii amuñu matricule du ñuy du ñuy militaire kenn mënu leen intégré bii gendarmerie Moussa Fall daal di leen jël jox leen bookar yàgg bookar yàgg jël leen nangu kaa jël boobu ki may wax turam chaque jour muy Abdul Wahaabu sàll moo nekkoon directeur ressources humaines moo yor wàllu recrutement yi ni gendarmerie bañee bookar yàgg mënoon na ko bañee moom moomu di Abdul Wahab sàll bañ ko indilee lii nga xamante ne mooy ordre illégaux bu mu war a bu mu war a appliqué mënoon naa ne mukk ala mukk maa bañ gendarmerie lu mu seexlu man police du ma ko jël waaye teewul téye ne leen ngeen téye leen nag ma wax leen ne leen képp kuy nervi bokkoon ci police rangé woon ci derrière police police joxoon la arme ngay dóor bal maa ko kitaabu ci dara ngay rasulullah amoon nga carte police. Naby Vision. ba ci sniper amoon na carte police sniper ak groupam bi ñuy carte am di roose ay bal fetal ci otoom fañ taxawoon dañoo ñëw teg seen oto dàq ni fa nekkoon wan leen seen carte police ñooñu daw ñu xaar ci axe boobu daam doy kar ko fa di di ko jéem a rey mu mooy ñooñu gang googu ñoo demoon sunu kër ca kawlax doon ko jéem lakk pour rey samay famille ma wax la ne la ministre de l' moo defaraloon carte police ñii nekkoon nervi yi am na ci koo xamante nii bi image boobu ñëpp gisoon rek moo ñu yoroon moto yi te gendarmerie arrêté woon leen ñu wane seen carte police gendarmerie nangu armes yi bàyyi leen ñu dem image boobu mi ngi ci réseau sociaux yi. boobu ba léegi may def inter ma lay interpellé Jean Baptiste Tine. désobéir ordre illégaux am nga droit def ko même bu fekkee ne officier bi moom moo am toujours raison dina la sanctionné dina la bandonné mën na la dàq waaye tey jii ana ñaan la Macky Sall dàqoon. est ce que tey amaatuñ seen poste bala ñu am poste yu gën a kawe yooyu ana Jean Baptiste Tine yow bala Macky Sall dàqee tey amoo gën lim la dàqee woon ana capitaine Touré c' un DG. Naby Vision. nekkatul ci rang yi di kepp ka ubbee ka ngaa yi ay repos garde bu ay nangama nga ay couleur ak ñoom seen mi ngi ci bureau toog di gérer ana Idrissa sama tooma bu pénitence ana ñeneen ak ñeneen nekk ñu tey di liggéey tey lu gën liggéey bi ñu amoon. Jean-Baptiste Tine son excellence le ministre de l'intérieur le l'ex-haut commandant de la gendarmerie l'ex-haute justice militaire ñi ngi lay interpellé waat ci nga segg police bi recrutement bi dugg deux mille vingt et un après mois de mars bi Macky Sall dafay discours am ba mattu daal da ngeen di taal gendarmerie da ngeen di taal police da ngeen di rey ay nit nangam ak nangam yónni cinq commissaire de police am ñu def seen groupe toog di fenn di projeté ay image ba France 24 bu nekk France di leen démentir ci vidéo yi yónni cinq ministres am yi nga xam ne ñoo ëpp doole muy justice premier ministre am euh, ministre de l'intérieur ministre euh, nu ñu ministre. Euh, Nabi Vision. ministre bi euh, ministre euh, de qui nous ça. justice forces armées euh, intérieur y'a ngi ministre ak xawma kan ñom cinq muy ñom Sidiki Kaba ñom nous ñu di fenn sénégalais mu dal suñu kaw sénégalais ñan lañ la force de l'ordre nous ñoo doon à ay bal civil yi sama première question point d'interrogation civil yi ñoo de reyante sen biir la force de défense et de sécurité yi ñoo doon dóor ay bal civil bu force de défense et de sécurité nous ñoo doon dóor ay bal civil même bu faites ne am dafa am amnistie waaye yow amnestie concerne où la police amnestie concerne où la gendarmerie parce que la police et la gendarmerie ñooñu duñu corps politique ñooñu bokkul ci politique amnistie bi ñoom politiciens yi la concerné mais concerné wul police concerné wul gendarmerie sa liggéey nag rafet na yaa ngi accueillir ñëpp ku la bind tey suba nga xëy accueillir ko mais Jean Baptiste Tine le ministre de l' intérieur je vous interpelle nga seggaat police bi wallahi wala ilaha illa huwa bu fekkee li may wax amul yàlla bu ma li sama àdduna yàlla bu ma sama fan yàlla bu ma gudd police a reçu plusieurs nervis la gendarmerie a reçu des nervis Naby Vision yow ak ministre de justice yow ak ministre de euh, euh, des forces armées seggaat leen police bi seggaat leen gendarmerie bi ngeen teg ko ngeen génne leen gars yi sénégalais yi di ngeen fi déggaat lu gën a garaaw ay bavure policière di ngeen fi dégg ay sàcc di ngeen fi dégg ay policiers yu dàqe nit nangu seen alal di ngeen fi dégg ay nit ñu rey nit lépp di ko fi déggaat fii yëpp gendarmerie li ma koy wax defu ko fii Jean Baptiste Tine seggul polis bi Biram Diop segg gendarmerie bi def katu ñaaw tey fi ñu génne leen gendarmerie ak police bokkuñu ci amnistie bi bokkuñu ci amnistie bi ñooñu ay force de l'ordre lañ gendarme bi ñu rey enquête war naa ubbeeku léegi bañ jàpp ñu leen rey ndax loolu bokkul ci amnistie kooku gendarme la militaire bi ñu rey war nañoo ubbi enquête interne xool ñu ngi leen rey loolu bokkul ci amnistie ndax kooku militaire la il n'est pas politicien cinq commando marin yi ñu rey war nañoo ubbi enquête xool ñan ñoo leen rey ndax loolu bokkul ci an bokkul ci amnistie loolu bokkul ci amnistie ñooñu ay force de défense et de sécurité lañ te nii la ñuy sol ñooñu bokkuñu ci politique ñooñu du ñuy politicien kon enquête boobu war naa ubbeeku léegi nag ñun on est battu on est combattu pendant des années sénégalais yëpp nelawuñu ñi deelee seeni mbokk yi dañoo la justice ñu ngi tëj ci kase bi injustement seen mbokk yi dañoo la justice Nabi Vision ñu ngi torturé seen mbokk yi dañoo la justice war naa leen fi benn image qui xamante nii benn euh, ex capitaine actuellement commandant Ousmane Kéré torturé benn waay Samsidine Diédhiou ba mu feebar ba nekk hôpital dinaa leen génneel image yi nga xam ne Samsidine Diédhiou mi ngi tëddoon hôpital dafa feebar ba fi may waxee yow nii parce que bi mu ko torturé ba pare dafa jël ndox mu sedd guy bu am glace sotti ko ko ba mu def ba mu indil ko feebaru yaramam ma nga noonu tëdd hôpital démb day dem hôpital ak ñëw di def ay visite ak ñoom seen démb la jógee hôpital maa ngi image yi nee naa ko nag da ngay bind plainte neex bind plainte naq bi mu naa ma noo fan lay mujjee fan lay nangam ma ne ko man maa la koy bindal bu jare adressé la ko au procureur bindal la adressé la ko au prévôtal ndax yow nga ki la torturé moom ak ki ko ko jàppandaloon yëpp déggante naa ñoom démb bi mu nekkee hôpital kooku da ngaa seeti woon nee naa leen def leen plainte collective yéen ñaar ngeen dem porter plainte Ousmane Kayré un gendarme nekkul procureur un gendarme n'a pas le droit de torturer quiconque un policier n'a pas le droit de torturer quiconque ñooñu ay auxiliaire de justice lañu war ñoo torturer kenn te man lii may wax awma ci lu ma ciy ragal je n'ai rien à te kenn mënu lu ma ci jàpp kenn mënu lu ma ci dara dañoo torturer ay nit ñu wax ko duñ fi kenn mënu ñoo fàttaloo lu fi weesu lu fi weesu dañ xeex ko ba am ndam ba teg fi suñu président mu teg fi gouvernement am kenn ko koo fàttaloo te gars yi dañuy wax neen armée sax dañ koy dañ naan sénégalais dafa gaaw fàtte sénégalais du am amul continuité sénégalais sept jours bu ni amee néew du ko dee du ko jooy lu weesu trois jours sénégalais bu meree du weesu trois jours sénégalais bu kontaanee du weesu trois jours loolu lañ doon waxte boobu ba léegi. Naby Vision. ñu ngi leen di fàttali li nga xamante ne moo fi xewoon ndax loolu kenn mënu kaa fàtte ay këru jàmbur ñu doon taal ay doomu aadama ñu doon kat leen jéem a rey ñi fi dee. ñi ñu amputé seeni loxo ñii seen tànk ñu seen bopp justice la ñu soxla ak enquête interne biir police ak biir gendarmerie Jean Baptiste Tine son excellence je vous respecte très bien mais xam nga du ma la jàngal sa liggéey ndax xam nga ko yaa ma gën a xam sa liggéey te bu dee enquête interne bi ubbi na yeex na ubbil leen ñu enquête interne ngeen seggal ñu contingent yi fi duggoon yëpp ñoom ñëpp intégré nañ leen biir police jamono jii nii ñoom ñëpp dem nañ biir police jamono jii nii ñu ngi biir police école de formation di génn par benn benn te seen durée légale GAV ak PAV 5 ans la woon ans yoo xam pénal ngay doon pénal mooy pendant durée légale defuñu sax même pas 3 ans Macky Sall pas fi décret nañ leen intégré auxiliaire gendarme ministre des forces armées yaa ma gën a xam li ma lay wax un auxiliaire gendarme n'est pas un militaire n'est pas un gendarme c'est un militaire détaché au corps de la gendarmerie. Quand il rentre à la gendarmerie, on le dans l'armée. La gendarmerie, le premier grade de la gendarmerie commence par sous-officier. moi ni dem def concours nouveau école des sous-officiers de la gendarmerie une formation auxiliaire gendarme amul gendarmerie gendarmerie boo fa xasee ba libéré boo fa dellusiwaatee rek